2024 gagne le pari de la mobilisation noonu la ko journal bi di Sud Quotidien xëy fësale si xët mu ndax nee na mobilisation bi nga xam ne gis nañu ko niki démb ci place de l'Obélisque maanaam nit ñi wuy si nañ bu baax a baax bi nee na ñi nga xam ne ñuy waa f li tax seen ma ak la nga xam ne ñaxtu nañu ko fa ak la nga xam ne nee na ñu bëgg ñu mu am ci réew mi mooy lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall ndax ñoom nee nañu lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature ñoo nekk ci réew société civile gi nee na ñi nga xam ne ñuy wax F24 ni ki démb daat nañuy wax ne bëgguñoo dégg lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky waaye tamit ñoom waa F24 daat nañuy artu Macky ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum écarté ay adversaire politique ci élection présidentielle 2024 ñi xam ne ñuy waa F24 ñoom nag nee nañu ñu bëgg jàpp gi mel ni tulleeg male ci tas ko do yi loole la ñu bëgg mu dakk nee nañu ko Macky loole la ñu bëgg mu daal di dakk Déthié Fall ci biir journal bi daan nay wax ne Macky Sall ji jeexal na na daal di waajal li nga xam ne mooy ab départ am Malick ci biir journal bi daan nay wax ne bépp ndaje boo xam ne dañu koy taxawale ngir nag di fa faagaagal Ousmane Sonko du ca bokk maanaam ci dialogue bi la Malick Gakou doon wax journal bi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu niki démb F24 seen mbooloo mi nga xam ne dajale nañu ko loole nag ab signal la boo xam ne bu la boo xam ne jëmale nañ ko ci Macky Sall journal bi nam ko tuddee mooy F24 lance un signal fort à Macky Sall yéen yi ni ki démb mel na ni tulleeg màlle am na pancarte yoo xam ne Macky dégage lañ ci bind am na ci pancarte yoo xam ne non au troisième mandat lañ ci bind am na ci pancarte yoo xam ne Macky dictateur lañ ca bind am na ci pancarte yoo xam ne Macky traître lañ ca bind am na ci pancarte yoo xam ne libérer les détenus politiques lañ ca bind yéen kay gi di vox populi xëy ci xët mu njëkk ne une forte mobilisation procureur Aliou Ndao démb ci rassemblement bi nga xam ne F24 doon nañu arrestation Ousmane Sonko ancien procureur bii di Aliou Ndao bi nag nee na lu jëm ci mbiri procès Adji moo ko waral waaye nag moom ancien procureur bi daan nay wax ne na ko farandooy Ousmane Sonko daa di taxaw temm opposé ko journal bii di laas nee na kenn ci nitu ko di Bassirou Diomaye Faye yéen kay gii di laas xëy ci mobilisation ne F24 ni ki démb amal nañu ko naka journal bi tudde mobilisation double XL du F24 yéen kay gi nee na véritable marée humaine noonu la ko laas yéen kay fësalee journal journal bii di enquête nee na rassemblement am na ni ki démb ci rassemblement bi nga xam ne waa F24 woote nañu ko ndax fu nekk fa la nit ñëw ci place de l'Obélisque yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñuy waa F24 ni ki démb wane nañu seen force de frappe maanaam wane nañu seen doole yéene kaay gi de Le yor yora nee ñi nga xam ne ñuy waa F24 jamono ji kay maanaam daal nañuy na ci wàllum naan ñu F24 ni ki di mu daje nañu ca place de l'Obélisque waaye nag xew yuxuloo nañu fa Khalifa Ababacar Sall yuxuloo yoo xam ne mara day tali ndax Khalifa Ababacar Sall ba mu bay jël kàddu la ko militant Ousmane Sonko yuxuloo yenn xeetu yuxuloo yoo xam ne mara day tali journal bi nee lu ñu ko waxul dañu ko fàtte traité nañ ko de tous les noms d'oiseaux journal bi de la point mooy xëy wax nee na nag loolee dafay firndeel ne jamono ji maanaam réeroo Dakar naan ñu du Khalifa Ababacar Sall rek la ñu yuxaloo ni ki démb ndax Khalifa Ababacar Sall di Pape Djibril Fall dañu leen a yuxaloo dañu leen toroxal ni ki démb ba ñu ne tortu ca place de l'Obélisque yéene kaay gi di Sud Quotidien Khalifa Ababacar Sall ak Pape Djibril Fall dañu leen a yuxaloo démb yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na bi nga xam ne F24 ni ki démb daan nañu koy amale crise bi nga xam ne moo am ci biir coalition yi nga xam ne moo am ci ne ñooy waa taxawu wi Khalifa Ababacar Sall nee na yuuxaloo yi nga xam ne moom lañ mooy yuuxaloo loolee yëngalu ma te nag yuuxaloo yi maanaam du moo fii jële Macky Sall yéene kaay gi nee na Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias maanaam teewuñu ni ki démb ca ndaje ma journal bi nee ñi farak Ousmane Sonko ak ñi farak Barthélémy Dias jàppante nañu fa ni ki démb ba xol sedd yéene kaay gi nee na Sonko ni ki démb ñëwul ca ma waaye nag Ousmane Sonko ñëwul waaye mel na ne luy ñëw ndax Sonko Sonko na ne tulleeg màlle mën na la gis nga foo xool dégg fa ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ñëwu la Barthélémy Dias ñëwu la Aminata Touré ñëwu la les grands absents journal bii di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu jamono ji nga xam ne F24 ñoo ngi loo ngir nag ñu bàyyi ñi nga xam ne jàpp nañu leen te wàllum politique taxa maanaam démb am na ku ñu jël yóbbu ko sa kasu ba di Oustaz Assane Seck daan nañu ko dépôt yéene kaay gi nag nee na Oustaz Assane Seck moom li tax ñu tekk loxo nek dafa waxoon ne Ousmane Sonko bu bokkee ci élection présidentielle 2024 dina ko gagné waaye nag bu ñu ko teree mu bokk ci élection yi mën naa dugg ci kaawoo kaay gii di leen foo Moussa Tine ni ki démb daan nay wax ne opposition bi dañoo war a joxante loxo dañoo war a nekk benn maanaam benn adversaire rek la ñu am maanaam muy Macky Sall yéene kaay gi de la sa ñu fekk fa Marème Soda Ndiaye mi fi nekkoon député ay jamono daan nay wax ne ñi nga xam ne ñooy dem fas yéene dialogue ak Macky Sall na leen leer na Macky Sall du démocrate docteur Abdourahmane Diouf nee na dialogue bii dil la ngir nag négocier lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky a tànn ay adversaire am waaye na ko leer bi nee na 2024 jamono ji nag seen doole yokk na bu baax a ndax lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar ci organisation maanaam ñoo nekkoon ci F24 jamono ji dem nañu ba téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi organisation yéen kaay gii di leen foo ñu fekk fa Barthélémy Dias moom nag nee na bi mu waxtaanee ak président Macky Sall Macky nee na ko lu jëm ci wàllum dialogue bi mën nañoo dem ba ak déggoo am ci Barthélémy Dias nee na li tax Macky Sall daal di koy nangu recevoir maanaam ay guddee guddi mu nee na Macky Sall xam na ne l'heure est grave yéen kaay gii di leen si ko xëy lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Mame Mbaye ñaar ba léegi pënd ba wureeku la ndax avocat yi Ousmane Sonko dem nañu pourvoi en cassation maanaam dem nañu cour suprême yéene kaay gi di libération xëy di ñu xibaar nañu ñi nga xam ne ay militaire lañu waroon na dem retraite jamono ji dañu ko daal di yokko duñu dem retraite journal bi di laas na lu jëm ci wàllum tension politique bi moo tax bëgguñu militaire yi di manqué loole moo tax yéene kaay gi di direct news xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ci diwaanu Paris la France journal bi dikk na ci jafe yi nga xam ne maanaam woytukki yi émigré yi moom la ñu faral di jànkonte la ak lu jëm ci wàllum papier ak logement ak wàllum liggéey journal bi nee na am na benn émigré boo xam ne moom nag nee na février 2014 bi mu wàccee ci aéroport Orly maanaam ca France dafa jàpp ne lépp gongo jàpp ne tekki na waaye nag ba mu demee lu toll ci benn semaine la jàpp ne li nga xam ne moom la doon gént ndekk du dëgg wax na nan ngay def ak fan ngay jaara ngir nga am visa mbooleem jafe-jafe yi nga xam ne moom la émigré di dund direct news xëy na ci tay yéene kaay gi di vox populi xëy dañu xibaar naan ñu mbër mii di Ada Fass teg nañu ko loxo li ñu ko toppi lu jëm ci wàllum association de malfaiteurs wàllum sàcc ak wàllum teg fitna nit wàllum violence